lan nga gisoon ci père Falaye Balde diggante komba boobu lan moo la ci gënoon neex lan moo la gën a marqué ci komba bi ba tey nga euh, li ma ci gën a marqué mooy Falaye dafa teewoon Falaye dafa amoon discipline yëgoon ñépp teebul kenn nga làmba jooju fekk na lenn ñaan daan na Falaye jaar Falaye Balde ñaari yoon Falaye Balde daan ko benn yoon ñooy làmba yi dañ tëggee fii Pikine tali bu bees. lan li ngeen ci déclaration bu rafet la mu ne bàyyi leen faale naa ko fekk dëkk bi fi mu dëkk ma daan ko ma xam ne maa ko man ma daan ko ñetti yoon moom moo daan benn yoon. faale bal nee na ci biir wax incha allah victoire bi fii lay des. keroog lan ni jàmm mi ngi mi ngi dugul bunta bi mi ngi yëgee ci koñ ba te koñ ba la yëg fa garab ga nekk. lay yëg taxaw ba ñëpp gis ko mu cëp da nga kees Fale Bande boobu ñu ngi tabax cinéma wax mu jógee marché seng foofu ma lay wax ak ñun ñu teg ci ak seen dënd yi ñu gis ko drapeau yi du du subaa jiitu ñu ngi toog. Hmm. boobu tax dafa sedd boobu géej waaye amut hmm. waaye bañ sëggee boobu Adama Jaxate moo ko doon roppote hmm. ku ñëw Adama Jaxate ak alaaji Maada Penda Seck bañ demee bay bëgg a leewaatoo bi ba nar a soufflé Adama Jaxate ku bëggoon falay la xol bi jaam ah ah ah ñetti yoon alaaji Maada jël micro bi na ko jërëjëf Biram Kumba Daadu yaay def noonu ah tey alaaji Maada kere Maada kere moo reportage ak nañ def ak na faalay def mbalande ñawa ñi face à face du suba arrière ba toog ci cummekaay te ñoom robal ñoom ñu nga for ñu sëgg mm-hmm. arbi bi suuf li nga fale ban dafa amoon technique mm-hmm. xam na la ni daane ko ñaari yoon mm-hmm. jël na leçon te mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bëri ci dëkkam dëkk ne loo mën a gis rek ñii di lekkatu ñii yow ñii di yuuxu ñii di kii waaye ba lan nag ne day dóor Faalaye Faalaye esquivé ko nii rek la daan def ñu ko sécurité mm-hmm. su leen di demee ci mu jàpp ko su ñëwee ci kaw mu jàpp noonu la ko jàpp mm-hmm. te Faalaye comme jàpp bu ñu ne Faalaye Banda jàpp na ko mm-hmm. ñu ne jóg la ñibbi noonu la ko def yëkkati ko ba ci kaw daane ko. Pikine tal bu bees. suñ kanam keroog Pikine xam nga du ma def bataa laa demoon bi ma jógee Casamance bataa laa demoon. jënd fa dàll bu bees tëkk. dalee keroog fa fa des waaye jar na ko. Mm-hmm. loolu moo moo am gu bu dee booy bambara et cetera yooyu yëpp fekk nañ ko.